réew mi ñoom nag ñoo nar a fas yéene ànd jàmmarlo ak ñi xam te ñoom ñoo di waa parti Pastef ak ñi xam te ñoo di waa coalition Diomaye président noonee la ko Vox Populi daal di xam ne ki fi nekkoon njiitu réew di Macky ni moom amul benn deal boo xam te daf ko def digganteem ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye noonee la ko xam ne ci biir journal bi waaye tamit Amadou Ba le PS la gauche plurielle d'autres forces politiques sinistres ñoom ñu ngay booloo ngir nag ñoom i fexe na nga xam te noonee la ñuy jàkkaarloo ak waa Pastef ak ñi xam ni ñoom ñoo di seen i allié journal bi di Vox Populi dikkaat na ci ci na mu gën a yaatu Walfadjri quotidien nañu nag enseignement privé catholique la polémique enfle entre l'église et Sonko coow li ci diggante église bi ak Ousmane Sonko boo moytu nag du jeex gum jamono ji la gannaaw ba nga xamante ni ilimaani jëruñ ji daal dina jëlub dogal ne nag bu fekkente ne école bi daal dinay ubbi ndonge bu ñu dàq kenn ndaxuk colinam la ko journal bi di Walf Fadjri quotidien daal di xam ne ki nga xam moo di Thierno Alassane Sall la muy tiit jamono ji la nag mooy mbir yi àgg ci ab dayoo ba xam deesu ko mën a wuññi noonu la ko journal bi xam ne enquête quotidien moom itamit dikkaat na ci élection législative anticipée mu ne la course aux alliances jamono ji la nag ñu ci a am ay coalition yu dëgër bana dem ci yooyu lay jongante APR réew mi ak PDS ñoom ñoo nar a ànd Mbacké Amadou Ba Khalifa Sall Aminata Mbengue Ndiaye ñoom i tamit fas yéene nañu joxante loxo ngir nag ñoom i tamit may ñu am coalition bu yaatu mën a jàmmaarloog ak ñi xam te ñoo fi nekk enquête quotidien dikkaat na ci waaye tamit lu ñeel yooyu les législatives ba léegi Pastef l'échappée solitaire ñi nga xam te ñoom ñoo waa parti Pastef ñoom itam dañu ca bokk waaye tam ndax ñoom ñoo nar a li xam te moom moo di coalition Diomaye président ko enquête xamle si du quotidien dikkaat na ci yooyu ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre mu ne jeu d'alliance le PDS et l'APR c'est leur retrouvaille PDS ak APR danañu dajewaat booloo waat doon benn say ngir bokk ci yooyu lay jongante Amadou Ba moom itamit daal dinay décroché araliment bu parti socialiste xalifa Sall ak yeneen yi kàngam yoo xamante ni fas yéene na ànd ak ñoom ci yooyu lay jongante liste ba Pastef Ousmane Sonko veut sécuriser son quota de député li nga xam te moo ñor wàllu quota de député fi mu toll nii moom la Ousmane Sonko bëgg andil ak kaaraange noonu la ko journal bu du waaye tamit lu ñeel wàllum concertation ci processus électoral bi ñi nga xam ñoo bokk ci coalition bi ñu duppee ATEL ñoom nag dañoo mujj gedd ndax la nga xam te ni noonee la ñu jàpp ni noonee la ñuy doxale daal jaarul yoon waaye ki nga xam te moo di jëriñ jor lu jëm ci wàllum biir réew mi nag bàyyiwu leen ci noonee noonee la ko Sud Quotidien daal di xamle lu ñeel wàllum conseil national de laïcité ñu ne nag l'église ne xam te ñoom ñoo di l'église bi daal xamuñu tiit noonee la ko waa conseil de laïcité coalition triple XL en gestation Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall Serigne Moustapha Sy prépare di ci li nga xam te moom moo di jongante yi ñu dëgmal ci wàllum législative yi ngir benn jàmmaarlu ak ñi nga xam te ñoo di waa Pastef ak seeni naataango noonee la ko journal bi di Les Échos yéenikaay daal di xam ne fësal ci xëtam bu njëkk nataalu Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall ak Serigne Moustapha la nga xam moom moo nekk seen yéene ngir daal am li nga xam moom moo di ab coalition bu yaatu waaye tamit mu ne ju Macky Sall Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ñoom itamit danañu dajewaat ci benn ab coalition ñoom itamit daal di dajale li nga moom moo di famille libérale ngir ñoom itamit am seen coalition bopp jàmmarlu ak ñi nga ñoom ñoo di waa Pastef ak waa coalition Diomaye Président Les Échos yéenikaay nañu nag Farba Ngom moom mer ba furtu la def jamono jile gannaaw ba nga xam te daal nañu dem guddi ci ak këram daal fay amal xam te ñoom ñoo amal lu ni mel amuñu ca sañ-sañ l'exclusif yéenekaay nañu nag nga xam te moom moo di Lat Diop daal mu ngi en garde à vue sur la base de simples accusations d'un détracteur maanaam koo xamante ni moom ma daf ko daal di boole daal di koy teg ay tuuma loolee tax ñu daal di teg loxo ki nga xam te moom moo di Lat Diop te lu ni mel nag woyof na lool noonu la ko journal bi di l'exclusif yéenekaay daal di xam te waaye tamit mu dikkaat ci li nga moom moo di kàddu waa conseil national de laïcité mu ne nag arrêté ñoom ñu ngay dànkaafu inimaani jëwriñ ci Ousmane Sonko nag ci li nga xam te noonu lay doxalee jamono ji le grand panel moom itamit xëy na di kat ci li nga xam te ni moo ñeel wàllum élection législative yi mu ne nag après sa démission de l'APR Abdou Karim Sall trace sa voie ki nga xam te moom moo di Abdou Karim Sall nekkoon fi jëruñ joroon ci wàllum alam gi ci jamono yi Macky Sall moom nag daal dina tekki ndombal tànkam ci parti bi nga xam te moom moo di APR ba noppi tamit daal di sos langoog boppam noonee la ko journal Sall moom moo ko nar a jiite lu ñeel wàllum élection législative yi nga xam te war na am ci weeru novembre grand panel na tamit les coalitions se multiplient li nga xam te moom moo di coalition yi ñu ngi gën a bëri jamono jile di gën a daje la Dakar waaye yéeni nañu agitation autour des législatives guerre froide Sall ba acte deux ki xam te moom moo di Amadou Ba ak Macky Sall ñoom i beneen jàmmaarloo la nar a doon ci biir yooyu lay jongante lii nag moo nar a doon ñaareelu wërngël be gannaaw nga xam te ni moom la ñu génn ñoom ñaari tamit seeni mbootaay danañu jàmmaarloo waa ci li nga xam te ni moom moo di élection législative yi la Dakar waay yéenikaay daal ko xam moom moo di yooyu lay jongante ndax Pastef nag moom moo leen nar a jiite x bet d'affaire Lat Diop Mohamed Dieng en d'être convoqué pour confrontation ki nga ni moom moo di Mohamed Dieng danañu ko convoqué ngir nag mu jàmmaarloo ak ki nga moom moo di Lat Diop ci coowal amal wan xbet noonu la ko le Dakar waaye yéenikaay daal di xam ne l'observateur yéenikaay moom itamit wax ci wàllum législative yooyu mu ne manœuvre et coup bas Amadou Ba PS AFP et la grande gauche attendent xalifa ñoom Khalifa Ababacar Sall la ñuy xaar jamono jile PDS APR ñoom itamit tàllal nañ loxo ki nga xam te moom moo di Idrissa Seck coalition bi nga xam te moom la ñu duppee atel seen diggante ak ministre de l'intérieur le premier clash la nga xam te moo dox ci seen diggante ca ndaje ma mënuñu Pastef le coup feutré aux alliés et les risques la nga xam te ñoom def nañ ko seeni alliés waaye tamit la leen ci mën a fekk ci ay loraange yëpp l'observateur yéeni kaay dikkaat na ci l'observateur dikk na tamit ci jéey ji ni am na ñeer wàllum immigration clandestine Barça wala Barsaq mu ne mort ou porte disparue le drame des familles décimées un pêcheur tombe en mer sur des à bord d'une pirogue benn mool boo xam ni moom naka dafa dal ci nag dañu jëloon gaal yooyu la ngir daal di dem ca Tugal la nga xam te moom mooy ñeel wàllum immigration clandestine ak ñi nga xam te ñoo di njaboot yi ci loru lépp l'observateur yéeni kaay xëy na nag def ci ab jàngat bu yaatu yaatu wéral journal bi le public yéeni kaay moom itamit xëy def ub jàngat ci li nga xam te moo di juróomi président yi xam te jot nañu jaar ci biir réewum Sénégal li ko dale ci Senghor jaar ci Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye le public yéeni kaay nañu les cinq chefs d'état au tribunal nga xam te moom moo di Cheikh Yérim Seck wax li nga xam moo nekk gis-gisam ah, ci jiitu réew yi nga xam te am nañu ci biir réewum Sénégal yëpp le point yéeni kaay moom itamit xëy na dikkaat ci li nga xam te ni moom moo di législative 2024 mu ne convergence de vue entre l'APR et le PDS waa APR ak PDS danañu boolawaat Cheikh Abdou Bara Dolly moom itamit daal di ne fekk ki nga xam te ni moom moo di amadu Ba APR ak réew mi ñoom itamit fas yéene nañu àndandoo ci yooyu lay jongante grande coalition APR réew mi décide de participer ensemble aux daal di xamle daal di cay yokk tamit ne le PDS se joint à l'APR adhère à l'ATEL et appelle à une longue coalition de l'opposition la ñu bëgg jamono jëlee mooy opposition bi yëpp daal di àndandoo doon benn ngir nag ñoom ñu mën a daal di jàmmaarlu ak ñi nga te ñoom ñoo di waa Diomaye président ak li nga xam te moom moo di nguur gi jamono jëlee nag ngir fexe ñu leen yi daane ci yooyu lay jongante législative noonu la ko journal bi xamle l'indépendant yéeni kaay nañu Jean Baptiste Tine disqualifié ñi xam te ñoom ñoo fare ci ku jégi jamono nañu ko daal mooy jëriñ jur lu jëm ci wàllum biir réew mi Jean Baptiste Tine nag moom nekkul ki nga xam te war jiite yooyu la élection législative ndax nag ñoom gis nañu la nga xam noonee lay doxale daal bokkul ak li nga xam moo nekk seen gis-gis ak seen bëgg-bëgg noonee la ko journal bi daal di xam les vingt moom itamit xëy na di kàcc li nga xam moo di choix yi ilimaani jëriñ ji def ci la nga xam noonee la ñu fas bokkee ci jongante président wala tamit ñu àndoon ak nguur gi ñoom ànduñu ci doxalin googee noonu la ko journal bi xam te dikkaat na ci ca na mu gën a L'As quotidien moom itamit xëy na dikkaat ci li nga xam moom moo ñeel wàllum détournement de deniers ak blanchiment d'argent mooy li nga xam moom la toppee ki fi nekkoon directeur général bopp LONASE mel ni ab dossier jamono ji le mu ngi ci loxo yéen ndax amal nañu ko te yëpp nëgandiku di di Farba Ngom nañ ci këram di fa def ab ci coowal ki xam te moom moo di Jérôme Bandiaky moom itamit maire bu Fuuta la def ni ki démb daal dina génn janok way taskatu xabaar di xam rek ni moom lu ni mel daal jaarul yoon te àndu ca te itamit dana dem fa mbaxana doone benn ndax nag amul kenn ko amoon sañ-sañu dugg ci këram google di fa amalu perquisition waaye itamit la xam te moo yenn kilifa yi nga xam te tere nañ génn ci biir réew mi moom Farba daanaka mandat boobu le dafay wéer di dem ba léegi te dafay am li nga xam te moom moo di immunité parlementaire kon amul kenn ku am sañ-sañu daal di ko tere mu dem ak dikk noonu la ko Farba Ngom xamle ni démb ba muy jano wuy taskatu xabaar yi tribune yéenikaay nañu près de deux cent euh, tous morts dans une pirogue à quarante huit mu ne nag lu ëpp ñaar téeméeri ñoo xamante ñoom ñëpp la fekk ci genn gaal ñu faatu te lu ni mel nag mu ngi na ci ñeen fukk ak juróom-ñetti njortu benn mool moo ko daal di gis noonee la ko journal bii di tribune yéenekaay daal di xamle Dakar Express nañu naka lu ñeel wàllum rapport avec Sonko Diomaye législative reddition des comptes Macky Sall Dibois génn nag wax li nga xamante ni xalaat na ko jamono jile ci doxalinu réew mi libération yéenekaay nañu nag vague d'arrestation à l'observatoire de la qualité des services financiers mu ne un système mafieux neutralisé boobu lépp kuréel nag la nga gis nañ fa daal moom mooy ay ay koppar yu ñu luubal ba tax nag bëri na ay kilifa yoo xam te ñu nga fa woon ñoom ñëpp daal di nañu leen teg loxo jamono jilee libération yéenikaay wax na tamit ci wàllum Barça wala Barsaq ak gaal googee nga xamante dañu ko fekk mu def ay ndaw ñoo xamante ni dañoo bëggoon a dem foofee ca Barsaq ñoom ñëpp daal di faatu mu ne l'embarcation serait partie de Mbour ba matul ak Mbour la googu lekk ak gaal daal di jóge la gendarmerie déjoue encore un départ à Mbéy ba ñuy wax Mbéy am na gaal goo xamante bëggoon na